ñu bun ci jëlee ay ñàngat ay ibra ak i xikam day baax ñàng mu neex bi lu am solo la waaye tamit nit ñi léeg di xam lu mu wundu tamit day am solo nañ fexe bu ñu amee jot lépp loo xamante ni wàccee dañ ko fi ñu mën see jëlee ay ñàngat ak ay bra ñu jéem ko tënk fii boo xoolee yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax li nga xamante ni moom moo doon xew diggante nuux ak doomam ba ci aay yi nga xam ne moom la cheikh bi jàng fii wa qaala irkabuu fiiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la gafurun rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى نوح ربه فقال رب ان بني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين جانغد مي سي نك موي سا باخ تخو باخ nga am باي جوليت تخو nga نيك benen mooy mbaax tamit léeg-léeg du lu ñuy doon ndax boo xoolee yonte yàlla nuux am yonente la waaye doomam am ab yéefar la ñaareelu jàngat bi nga jëlee si ni yàlla moom mooy jubal ko ko neex waaye nekkul yonente yi ñoom ñooy jubal ñu leen neex comme foofu radd la ci ñenn ñi ñi nga xam dañu ëppal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yonente yi nekkul ñooy jubal yonente yi dañuy jottali mais yàlla moom mooy jubal moo tax nuux ba mu ko ne ya sama doom yéegal nga am ak ñun kaay bokk ci jullit ñi dafa ne déedéet nuux woo na ci njub doom ci bañ kon loolu da wane ni yonente yi lu ñu am rek mooy jottali waaye lii di euh, jubal nit ñi njub nekkul seen loxo njub mu ngi ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo tax yàlla mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka laa tahdi man ahbabta yow doo nekkul yaay jubal ku la neex de walakin allah yahdi man yasha yàlla moom mooy kuy jubal ku comme gis nga nuux ànd ak lu muy nekk yonente yépp mënul jubal doomam wax na ba sonn wax na doomam wax lu yàlla wax waaye doomam taxul mu jub kon loolu day firi ni yi nekkul njub Nekul sen loxo way njub mu ngi ci loxo yalla borom subhanahu wa taala comme lool day firi nek lepp lo xamne ndogal la ak rububiya ci loxo yalla la nekk nekul ci loxo mindeef comme bu njëkk bi moy ñangat buñ ci jëlé moy nit mën na baax doomum ñew nekk ku bon loolu borom subhanahu taala di wax ni yukhrijul mayyita min al hayy day génnee ku bon ci ko xam ku baax la nit ku baax ñëw jur koo xamante ni ku bon la léegi da dégg masal ñu naan ah déew doom ca ndey ja waaye nag loolu nekkul lu ñuy généraliser léeg-léeg da ngay gis ndeyu bon doom ñëw baax nga gis ndey baax doom ñëw bon lool sax ba ndey sax du xam doom lu muy nekkee fekk doom mu ngi toj dëkk bi mu ngi def lu nekk yaa ji jàpp ni ku baax la fekk boo xoolee ku bon la ñetteel bu ñu siy jëlee moom mooy yàlla mooy ki nga xamante ni moom mooy sauver. yàlla mooy ki nga xamante ni moom mooy sauvé ndax doomu nuux ba ko nuux ba ndox mi ñëwee di ball di fees nuux ne ko kaay yéeg nga ànd ak ñun lan la wax qaala saawi ila jabalin yasimuni min alma dafa ne saawi ila jabal damay dem yéeg ca montagne ba yasimuni min alma montagne bi dina ma musal ci ndox mi comme moom bàyyi na yàlla jàpp na ni yéeg ba muy yéeg ci montagne bi mooy tax mu mucc yàlla bu ko woon di ku lay muccal kenn la muy man yàlla maanaam boo yéegoon ba ci collu montagne bi sax fekk yàlla muccalu la ndox mi bu ñëwee da la fekk dalay faagaagal comme nga jëlee ci ñetteelu ñàngat mooy mucc kenn moo ko yor kenn mu yàlla borom bi subhanahu tey bu dëkk bi doon tàkk nga jël avion yooyu yéeg ci kaw tamit yéeg ci kaw jàpp ne da dem yàlla ci coobaram bu ko neexee loolu nga xamante ni moom moo doon màbbal dëkk bi mu yéegal ko ba ci avion bi mu daal di ci boole avion bi comme yàlla bëgg na woon ni fii ne moom mooy ki nga xam ne mooy muccal waaye nekkul ay mont yéeg ci montagne wala yéeg ci étage wala yéeg ci feneen moom moo lay muccal beneen ñàngat buñ ci jëlee moom mooy euh, lii nga xamante ni moom mooy ñaanal yéefar du dagan ñaanal yéefar du dagan moo tax kii di doomu nuux ba mu demee yéeg ca kaw montagne ba ba ko papaam woowee mu jàpp ni montagne bee koy muccal ndox ma fekk ko fa daal di koy faagaagal nuux daa yëkkati loxoom di ñaan yàlla ne ko yàlla ay kii de yërëm ko kii sama doom la يلا كي يربكو كي سما دوم لا ونادى نوح ربه فقال رب ان بني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين يلا نكو انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح قال يا نوح انه ليس من اهلك ان innahu amalun ghayru salih yalla ko ki bokul say njabot ndax ki ab yeufeur la won yalla mu ko bokul say njabot ndax ab yeufeur la won gis nga comme nga jele si ni yàlla dina mbugal dom ku bax nga jele si wat ni yalla dina mbugal dom ku bax ndax nuh ku bax la yalla ne dina mbugal doomam comme ñaanal ab yéefar du dagan loolu charu man qablanaa la charia bu ñu jiitu waaye suñu charia da koo dëggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla muhammad papaam bu ndaw di abu taalib da ko doon dimbali di ko jàppale ci lépp ba mu faatoo waaye mu dee ci kéefër nanguwul dugg ci lislaam nanguwul topp muhammad ba mu faatoo yonente bi sallallahu alayhi yëkkati ay loxam di ñaan yàlla yónni jibril ne ko wàcceel daganul ci yonente wala ci ab jullit muy ñaanal koo xam ni gëmul yàlla ginnaaw ba mu ko da ci waa sawara la bokk comme gis nga comme yonente sax amul droit di ñaanal ab yëfër waxuma laa nag keneen ku dul yonente mu wal la ni lii di mbirum gërëm dugalaate aljana ak sawara ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo yonente lii du mbiru dugal nit safara wala aljanna ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo yonente yonente yi mënuñoo res kenn aljanna loolu ci ndigalu ci ndigalu yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo tax nuux ak yonente bi salaa sallam ba ñu bëggee yàlla jéggal ba nuux bëggee yàlla jéggal doomam ba yonente bi bëggee yàlla jéggal abu taalib yàlla daf leen ko tere daleen leen ñii duma leen jéggal beneen bi mooy beneen njàngat bi ci ciy jëlee mooy di ñaanal ab yéefar loolu ab réer la moo tax yàlla mu ne nuux inni aiduka an takuna min al jaahilin inni aiduka an takuna min al jaahilin dama lay moytuloo di la ko pour nga bañ a bokk ci ñu réer ñi kañ la ko yàlla wax loolu mooy ginnaaw ba mu ñaanalee doomam doomam bi nga xam ne ab la mu koy ñaanal yàlla yàlla ne ko e eh, barkat maa ngi lay moytuloo nga bokk ci ñu réer comme di ñaanal ku dul jullit ab réer la te da ngay gis ndeysaan ay yéefar yu faatu ay jullit ñooy taxaw naan yàlla leen yàlla yërëm ñoo xam ne gëmuñu gëmuñu lislaam bu ñu nee yéefar mooy koo xam ne gëmul Muhammad képp ku gëmul Muhammad toppul Muhammad toppul diine lislaam ab yéefar la comme nga jëlee ci ne ñaanal yéefar ab bàkkaar la ñaanal yéefar nekkul lu dagan comme lii mooy ay ñàngat yoo xam ne moom lañ jëlee ci aaya bi di sant cheikh bi ak ki nga xam ne moom moo ko fi moom moo ko fi wàccee بارك الله فيكم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون